nhau lên mawata na yen nhau lên ta mawata na yen na mày may nè. Euh, je me nomme Cheikhou Diakité euh, di docteur vétérinaire en même temps di yar ay laadum quoi mag sama copain bi àll moo ne nii àll saaxo uh-huh. ah Siré daf ñoo maas si virus bi ñoo maas virus mooy sax daf ñoo fees jël est-ce que ko sax waaw waaw Kumba Thiané euh, bergerie boo xamante ne ñaari tur muy Kumba ak Kumba moy sama turu yaay Thiané moy sama turu copain bi ala wa ñoo bok bergerie bergerie bi ah liga ay eh, xaru rafet rek ay xaru yu am maceration xaru yu am beauté xaru yu baax nga xam ne ku ko gis bëgg ko loolu lañ bëgg liggéey sama yaala wa waaw ba ñu débuté nak mom da maanaam dañoo gisoon benn teung rek àll ma teung bi rafet na ñu jënd ko commencé nonu rek jéki jéki rek yàlla ya, andi xéwal bi ñu ut yenen xar ba tay am bergerie ko wa ah, loolu la démé dugul nañ ci congori dugul dugal nañ benn espoir moo nekk ni bokk na ci diis yi quoi dugal na jeune mâle aussi qualifié na ci diis yi mooy jeune mâle doomu gaynde bi waaw yooyu yëpp bokk nañ ci concours bi non non dugaluñu ko femelle dugaluñu femelle femelle dañoo porté dañoo diis moo tax dugaluñu leen waaw moom jaar na yoon ba pare boo seeraanee concours yi xam ne foire bu am niveau la waaw foire bu am niveau la ñu la di wax rek ñu gën a dolli seen loxo rek waaw ah, gën a jàpp parce que foire moom na trop macha allah gis nañ suñu bopp bu baax a baax waaw am na ñu bëri ñu commandé ci xar am na sax ñu waxaale wane foire bu passé dinañ ñëw ñu finaliser bu soobe yàlla wa dañu exposer en même temps dañu vente bu ñu gisee prix bu ñu arrangé rek dañu jaay inshallah wa gis na ne ci biir foire mom entretien bi rafet na même amna na groupe vétérinaire bu fi nek di def liggéey bu muccu ayib macha allah waaw amna man ma ngi def intervention amna ñeneen ñoo xamne ne tamit ñoo def intervention ñoo xamne foire mo leen jël ñi def intervention ci xari mais intervention yi mucc ayib nañu def wax deug fa neex yàlla waaw Bésiré kuma Thiané moy intervention unité la nekk à euh, wetu Dior. ah lu ñu tëjee xanaa présenté la xar yi rek <laughs> kii mooy Amina xar bi mooy Amina doomu candeela la moo ne nii moo ci deux portes jeune mâle bi moo ne nii ala woon ko jeune mâle bi jeune mâle ne nii doomu gaynde la. Ah, kii mooy Cachemire. Cachemire moo ngi ci 11 mois moo ngi ci mois. waaw ku suukar café gi de ñu jox la ko moom. café gi daa ku suukar café gi moom waaw ñu jox la de. waaw bu dee bu exception la yor macha allah am nañ ci yaakaar daal parce que yéen ci liggéey bu soobee yàlla. ah kii nii moy Soumeya. moom tamit 13 mois. boo xoolee moom doomu mineur la mineur doomu procureur procureur doomu Grand Rane yaa ji doomu booy Galoya. mom aussi mu nek bet bu am yaakar dal mo ne ni leg espoir mo nek na la espoir mo ngi 17 mois mo ngi 17 mois mom duggal nañ ko ba nat ko mo ngi am hauteur 101 100 Lc 143.5 bok na ci 10 10 sélection yi ah mo ngi 17 mois ben porté la am mhm. duggal na concours wa do na concours bañ nat ko. mom bok ci 10 premier bok na ci 10 premier wa waaw añal bi ndaw bi. moom doomu requin la moom ma waral coow la Zuleyxa moom mii ma waral coow foire bi nag ki mooy Zuleyxa. ki mooy Zuleyxa. cinq mois doomu requin la yaa ji di Saalum. rekkee doomu gaynde gaynde doomu Saalum. di Saalum bete bete nag. waaw. si yaay. daal foo doy caaxaan <laughs> léegi mbote bi moo des. kii doomu Jon la. espoir bi ko jur ak John sunu mal bi ñu yoron dom Picasso bi. dom Picasso mom mom elle a 2 mois et demi di waye dug ci 3 mois. Uh-huh. waaw mom nañ andi ni uh-huh. wa ki sang présenté won nañ ko nak mais da melni mo ñu gëna neex quoi. ma ra ñu koy ñu koy téye nii <laughs> allah. di contane si Adam bi. di ñaan yàlla yàlla fekkee ñu ko ay déwén yu bëree bëri ba anam 2024 wala 2025 fekk fekk ñu fi fekk ñëpp seen xarit produit ay doom rafet ba ñëw exposé waat bu soobee yàlla waaw kontaan nañ bu baax Grand Ndiaga yàlla na merci beaucoup